par ah géejawaay gi nekk ni nga xam te ne moom mu ñu tuturoo mo la ñu sagoo ndax mu daanee ndam lu mu gudd gudd naa géejawaay li woo Balla Gaye ndax njiit la te njiitu sàkk njiit yàlla mooy sàkk njiit ñu koy woo si combat bi dañ bëgg lii nga jàll ko Balla Gaye 2 ñu ay waar waar 100 pour cent loolu dañ bëgg mu jàpp combat bi nekk tamit doomu géejawaay di woo ñëpp di ñaan yàlla combat bi yàlla sutaanu que yéen a ngi sóoraale seen adversaire bi nga xamante ne moom moo di Pape Ndoye day bëre de. waaw ñu ngi ko sóoraale si lépp ndax maanaam dañuy làmb nekkul ay bëre bi kese ndax dañuy sóoraale mooy entraîné lépp bëre dóor bu ñu ñëw rek maanaam fekk si ñun yow naw joxuñu avance ñu mooy suñu borom moo ko yor yàlla ko may Pamboy bu bëree dina bëre dina bëre lu ko raw bu xeexee lu xeex lu ko yàlla may ndam si kawam si dem seen buy waaw. ilaahi jàmm rahmaani jàmm rahimi jàmm yàlla jàmm yàgg ni sekk njaay ak aatu maan ma njaay ngëndeen ma nga géej abu demba bàyyu maar mënu jam jabaas jam ko fàndeel maa ngi jooy ongo njaay mu ñu laxa sa lembaaxaan ma des sa teenu jukko ya man la sàlla njaay ma xaraja nguur géej ak mbay njaay ma des sa benn fenke leen menke leen yàlla bi yàlla moo tali fajar majar tafsir moo dikkal salaxu mexe malaxu mexe abdou karim abdou karim duf na góor karkar na jigéen fa ba ma demee ndar géej takku saa ni ndar géej njawar saar sa ndar géej ba may bëreeg moom ñëpp ni moo may daan dafa laxasu sama tànk ba dafa ni moo di daan ba ma ndee këtëñ njawar mu ni bërët di ma xool ne kër kër bale teg ma bital ni koog moom sama dukkat ya sa ndar yaamu naa ni dootu fa am ni sumay bëre gis nga sumay bëre ñoo àndal dañoo rafet yawan dañoo taa damay laaj ceeb pour. nan la nga ni. Mbaye Diaw. waaw da ngay présenté wu nga wax sa papa affaire yooyu dégg waaw Mbaye Diaw doomu Souleymane Diaw waalo ñu nekk ay doomu lutteur comme ni Balla Gaye doo nekkee ay doomu doomu mbër quoi. xëy na man bii 4 combats 3 victoires 1 défaite. mais li allah li gënoon a léegi nga def bàkk parce que xale yi léegi mënatuñ ko. yow tey nga ñëw wala da nga doon ci sa papa. non waaw dama ko doon sama papa ba pare tamit sama papa maam góor gi Ndiaye conseil ma lu ma ngay dóoraan ko mu wóolu ma këram waxtaan ak man si euh, maa ngi seen numéro ndax dañ may woo tout le temps ma koy dóor sam sa combat dañ koy yàkkamti ma koy def. mais tey jii Jackson dafa xewle woolu ma ni ma ñëwal nga dugal si sa participation ma ni ko ak fu mu mën dem dinaa ñëw. Thank you. paregul ba tey waa géej way tey nag mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ñu ngi fii géej way liñ fi indi nag mooy cam production moo tëgg lamb samedi 14 décembre Pape Ndoye bu Fass Racky Lagros Jackson Senior Guédiawaye mbooloo ñu fekk Jackson fii tey ci fiefam Guédiawaye muy def open press di waajal bésam mbër ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw Babacar ginnaaw ma sant yàlla bu baax di jël seen bi sant sama ñaari waajur di sant suma sëriñ sëriñ Moussa Fass yi ñaanal yàlla na fi yàgg du wér waaw di ñaanal ñëpp di leen nuyu di ñëw di nuyu presse bépp waaw dafa am ah, laaj ma lay laaj pour sénégalais yi mu gën a leer ci ñoom jackson géejuwaay mbooloo la ne jackson ñaata combat la bëri ko ñaata ndam la ci amago actuellement waaw géejuwaay mbooloo la nekk am na 11 combat waaw am am si 9 victoire 2 défaite nga jël combat ak Pape Ndoye daaw nga def ñaari combat yu marqué sénégalais yi sa digganteeg Boulal sa digganteeg sang les tigres daan leen ay jël yu doy doy waar mu melni combat bu yoy nga def daw est ce que du ren moo leen di fi nga nek ni wa ñun lamb ya nga def preuve amaana gars yi loolu lañ gis daw mais depuis tout temps lay ñoy ñooy bëri preuve ñoy sant yàlla bu baax nag ñun mënaguñ dara et tout temps nañ ñooy doon tàmbale mënaguñ dara ci lamb dañu tété ba lay nii di ñaan yalla yalla yalla daf gis ñu man ñoy ci yoon bi di dina jot ñu man mais mënaguñ dara inshallah ki ngay dajal xam nga pam Pape waaw xamna naa ko bu baax ci nam. xam naa ko si bëre xam naa ni gëree la xam naa ni champion la moo tax ma jël ko waaw di ko ñaan di ko wax nag gaa ngi ñoom tamit mu xaar dina dëggal boppam suur tànk yi mu dëggal boppam suur tànk yi nengal yaram bi ngeen ñime jam-jam yi man senegal bu xam na ne yàlla defal na ma bëre bu sama man man sax mais man noonu yàlla mais dama bëgg woon ñu combat bi wan ci xeex waaw wan na ma naa xeex waaw dama bëgg xeex bu ma si bëre am na solo loo ko bëgg a laaj. Ah, ñu gis ni Pape Ndoye kon ni mu wax nee na yow doo adversaire potentiel nee na yéen comme lamb boolewu leen année blanche kese moom moo leen boolewu lay wax. waaw Pape Ndoye bu waxee loolu noonu day wax lu ko neex rek seen yii nii lay teg yaa ngi dégg parce que Pape Ndoye boo tegee suñu adversaire teg ay adversaire am teg sama palmarès teg palmarès am du ma moroomam sax si palmarès am doon sept combats la am dafa demee nag waaw ah, six victoire benn défaite kon onze combats la am. kon kon moom. mu ne sax dinañ ko ndax parce que dina la attaqué dina la ko loolu business boo xam la man sama business sama business la te bu jour ba dinaa lu ma indi man du ma sonal reporter naan ay dugg na fii génn fii jàpp na ko daan na ko ma sama lam onze combat laa bëre mosul am une minute waaw kon bu doon day gaaw rek kon moom loolu day gën a neex rek si man. su ma la seetaan nga ko mu bëri seetaan nañ la nga bëri yéen ñaar boo xoolee sa xool ko kan moo dàq bëri. loolu nga yéen laa koy laaj. dañuy laaj yaa Jackson. Jackson. Jackson. xam nga moom comme ne la la man maa ngi moom muy primaire. waaw loolu maa leen soxna naa ne. PAM doy man man moom boo doon xool. moom primaire nekk man ma ne université. mën naa ko jàngal bëre. primaire nekk man ma ne sama man ma sama gëm-gëm ak nu may ci làmb leen li ma laaj nga xam waaw euh, Jackson ñu dégg la nga ci signature bi nga ne dem ngénte euh, dem dëj moo la gënal dem ngénte loolu fan nga ko teg lan nga waaw man sancañ la rek ak ñu may àndal ñu man àndul ma benn ragal àndul ma benn tapet la man man dem dëj moom gën dem ngénte moom laa waxoon waxaat naa ko tey te bu jour wal lool waaw da ngay dal bu baax est-ce que réellement pam doy ndax dañoo gis nga pam doy neena yow seuf ki mo mom mo la mën nan ngay def ba labali ko kon ah, dego nga amat caméra ak team la ngay wax lo neex ba neex no la bëgg di ñaan yalla yalla sural ma duma ko dango euh, Jackson est-ce que yaa ngi Pam Ndoy mi nga xamantane day ñëw bëreem day ñëw song la daan est-ce que man damay song wala songuma man damay song damay beure lu mu indi fekk bi le 14 inshallah man laaj la leen Pape Ndoye écrit bi mu nek sénégalais yi dañ écrit bu mag l'écrit face yeen ñaar buñu ñu écrit tay est ce do am ben njàqaare ci par rapport ak mbeur yi koy ëmbëg parce que Raku Lagros ay Gris Bordeaux ay Papa saw encadrement ni tabay gi loolu do du def ci rew dara man wa dalay beure ba lay ay écrit mag lay beure ñu sutuma écrit affaire du si écrit du ay école de lutte ci nit ki la gëm-gëm bi waaw yag na bari écurie mak ay lamsaar dugg naa fa dugar fa ay parcel do do dugg naa fa duggaat kon du question ay jere ci nit ki la quoi waaw lagros du dugu gris de du kenn dugu dugg ah. ñu ñoo ne ci biir geewé yag mom rek waaw dama ñaan yalla su dural ma ci bu baax mais ñu gis ay boy dong ñoo la entouré par rapport ak écurie gis nga ay ñoom Moustapha Gueye ainsi de suite mais yow ay boy dong ñoo la entouré est-ce que loolu du am dara lu mu def ci yow waaw boy ñoo ñoo mu ngeen gis mais mag ñoo may dama man lu may man tout tàng laa lu may def lépp lu ma koy defal mënuma a si àdduna mbokk laa tout tàng laa damay jéem ba léegi nii mais grand frère yaa ngi si ginnaaw doon feeñu amaana nekkul ñu mbër genre affaire yooyu waaw mbër yi ngis mais mag ñaa ngi si ginnaaw ñoo may xelal bu baax. saison bi ubbi na géejawaay mu ngi jëkk a waaj ak grand combat muy yow loolu nooy gàddoo yéen boobu dimanche samedi incha allah. waaw ñun làmb doonul nekk pression si ñun parce que ñun maaguñu bëre amuñu magu mbër am ñu mbër amuñu njaay mbër suñu fit ak suñu xam-xam boobu ak ndimbalu yàlla mooñ boo si te tout temps ba léegi ñooy bëre kon géew duñ si tiiti mhm. loolu du business adversaire du business waaw lamb yi tamit du dara ñun bu subaa na nga réglé comme doon réglé yeneen lamb yi côté mobilisation bi foo ci toll waaw mobilisation kenn du wax Jackson eh, man mosuma dem lamb ñu xeeb ma fa waaw promoteur ñu ngi may dégg amul promoteur moom ma tëgg xeeb ma waaw loolu moom du problème moom laa waxee nu am jom rek comme dama koy fekk moom mobiliser moom tamit ah. stade bi dama bëgg quatre heures ñu ah. waaw bu defee ni ma waaw kon su ma la déggee sa mbooloo fusa, wow, mbooloom fuuf sax loolu waaw képp mbooloo yàlla ko yang may ndam wow, bu joura képp mbooloo ñu ñaar yàlla ko yàlla may ndam loolu nga wax yow waaw kon promoteur bi mën naa dalal xelam ci sa côté waaw jàmm provision dalal xelam bu baax parce que tamit tout temps la jël wecce dem xamoon ko def si ñun te ñun amaana mu ñu magee sax bëri wala bu ñu magee maguñu xam nga mu réussir bis bi xam di mu am dem bay roi <laughs> mu man waaw mais Jackson fu mu jàngi man jaamu bëre peen dimbalu yàlla rek yàlla may dimbal chaque jour. am na ñuy wax ne dañ lay xaw dañ lay xaw a niróo lekk Modou Lo yu mel noonu quoi est ce que yaa bu baax a baax kay. waaw maa ngi koy dégg bu baax. Uh-huh. sa idole la wala si lan la. non làmb la nii rek moom xamante ne la moom tamit Modou Lo maa ngi koy bu baax a baax. Uh-huh. Jackson bi fan la toll ci yow. enjeu combat bi est ce que mës ngaa toll mës ngaa nañ ni combat bi macha allah promotion bi doy na par rapport ak les autres combats yi nga xamante ne moom moo passé enjeu bi fu mu toll non ñun bis du res ñun ba dañ dañ dem babat bis nga dess ñun mais lay bis do res ñun pam lay adversaire da taw mo sam beursa man beurluma pam lay san tolli ku bëgg don roi réserve bëgg indi geew way ak bun roi réserve kon pam do du ko xol yeah kon da nga bëgg wax ni pam do du adversaire pour du mom nako mom ngay baye mo xal sax barki serigne mustafa baye mo xal sax du bu jour wa na wa ki baye mo xal loy mujja wax waaw di sante yalla sante ñepp di sante wa bun bu baax baax baax di sante wa geew way wa ruy 15 waa ya, ma maa ngi leen sant bu baax a baax di sant rungaas yi di sant mbir di sant suma de partiam bu baax ñu ngi may jàppale si yi di ma jàppale entraînement yi di ma conseil xam nga la la guerre xam nga mbir gi yëpp balagay gaa yëpp xam nga suma pap pap pap Umar xam père Dora président Pape Fall di wax gars yi dañ jàpp père Mbaye Jaxate xam nga ñoom Laay Diop ñoom Baba ñoom Saaro xam nga waa yi waa Boune ru 15 na ñepp ñew di wo ñepp di wo waa Aïssa Sanji bi di wo ñom nar xama mama Aminata Niang maa ngi koy woo ba ba a xama la job di wo ñepp ba war ma leen di wax bu jour de da ngeen gis lu garaaw a lu yeme lu doy war inshallah allah si kàttan yàlla ñaan nak yalla ma yalla may fekk tal am doy ma nga ñaan la jamm uh-huh. yalla sutural ko may ko wér ak gudd ak fan xama fekk ko ba mu ñew ba mama jàpp na bu baaxa baaxa ba a baax uh-huh. di woo sama suba reeb la 14 ko être ñepp fekk la stade di wo wa campagne bu baaxa a baax waa Cambérène ñoom sago xama ñoom Njonaan azan Alsaan xam nga ñoom Ahmada waa Jamgën maa ngi woo ñëpp du bëgg ñëpp waa Waalo maa ngi woo ñëpp waa Fass Mbao taari dañ teel a ñëw daa war la ko daa la wax de maa la woo fii nii tey la tey la tey la ñaata tey la 10 tey 10 waaw bindoo ma wax bam do bu ma dàq jee doo ko doole bu taxawee bu taxawee doo ko doole kon nañ ko yeew foofu bu suulee tàngee rek waaw rang muy gaaw lay doon rang muy daa incha allah